ci histoire Sénégal ndax ñaari at ci ginnaaw am na lu fi xewoon muy ay xale yu génnoon doon manifester ginnaaw bi ñu convoqué Ousmane Sonko tribunal bu Ndakaaru ndax l'affaire bi nga xam ne doon opposé diggante ak Adji Sarr ñu bëri ñàkkoon ci seen bakkan tey ci ñaari at ginnaaw loolu euh, ba tey yëf yi leeragul xamuñu kan moo def lan euh, yëf yi doy na waar la justice ñi ngi koy demande à votre niveau euh, qu'est-ce que vous avez à dire Euh, Mamadou damay euh, juste euh, méttitlu ah naqarlu comme yëpp parce que xam nga ni événement yooyu bi muy am ñëpp la naqari ndax bëggoon nañu surtout ci terrain politique bi ñu bañ a jaawarle loo xam ne politique la ak loo xam ne privé la. loo xam ne ça concerne tout le monde ak loo xam ne nit ki ci boppam la concerné parce que yaakaar naa ni devant la loi citoyen yëpp ñoo yem. Euh, donc euh, ku def loo xam ne da nga war a wuy ji yoon je pense que da nga war a jóg dem wuy ji yoon li nga xam ne loolu la yoon. Mhm. Euh, wax ci yow nga dund ko comme ni ko Sénégalais yëpp di dundee. Ah, mais est-ce war ñu inquiétude dans la mesure où deux ans après ces événements ba tey yoon defagul liggéeyam moo xam ci Ousmane Sonko Adji Sarr la moo xam ci ñi nga xam ne ñàkkoon nañ seen bakkan wala ñàkk li nga xam ne seen seen moomeel la woon. waaw yoon mu ngi def liggéeyam parce que comme on dit dañuy wax ne am na heure yoon. ak heure nit ñi bi ñuy dund chaque jour. Mhm. donc xam nga ni dossier yi tribunal nañ koy gérer ak yëngu-yëngu àddina ñoom seen waxtu bopp lañ yor waaye quelque que soit alpha ak lu mu munti doon yàgg-yàgg la justice rafet faite. Mhm. donc l'heure de la justice mënuñu ko yàkkamti donc euh, loolu rek la lëf mu ngi si loxo yoon. waaye mën na ñàkk dafa nekk yoo xam ne rek ñun li ñuy ñaan euh, njaboot gi euh, suñu doom yi suñu rakk yi ñu ànd ak dal. Euh, àddina xàmme ak ràññee da cee baax et que am na yoo xam ne bu amee euh, ñi nga xam ne ñoo ci loru euh, li ci ëpp ñoom ñooy perte ak seen i mbokk directement mm-hmm. ak Sénégal parce que ñooñu ci loru mënoon nu nekk leneen ëllëg yokk njëriñ ci réew mi yokk fi sax yokk fi barke. mu doon loo xam ne euh, ñu bëri dénoncé nañ ko ginnaaw gi la président Sall ne woon li amoon du amaat euh, tey jii nii xëy na yëf yi leeragul ci ñi ko séqoon mais depuis la on a constaté que la justice euh, souvent dafay dafay dafay jub dal ci ñi nga xam ne ñi ngi dal ci kaw yoon wala magistrat yi wala yàq yi fi jàmbur tey jii ñi nekk kaso bëri nañu lool ki nga xam ne moom lañu mujjee woolu tey muy sunu confrère di Pape Ndiaye ndax mën nañ ko dugal ci cadre bi nga xam ne moom la exprimé woon ginnaaw yooyu yooyu la événement. waaw wàllu justice moom jotewul dara ak li nga xam ne moom la président Macky Sall mi nga xam ne mooy le chef de l'exécutif on est dañ nekk ci république. Mhm. Euh, nekk ci état euh, pouvoir yi am séparation état di gérer le général wax dëgg yàlla la justice di gérer l'aspect spécifique. mi nga xam ne moo ko concerné euh, ñun citoyens yi ñun ñoo fi teg loi yi ak règlement yi. ñu respecter les lois et règlements le président Macky Sall lu tax mu wax ne li amoon le 21 le 3 mars dootu euh, xam nga yàgg nañ fi convoqué leader politique ci yoon ay ñoñom gunge ko dem gunge ko mu dem uy ji bu danee dellu këram mu dellu këram mhm. buñ ko waree jàpp jàpp ko luy am am te wax dëgg yàlla du egg ci fenn fi mu jàppoon ni nag euh, wax dëgg yàlla ah, ñi ñu ko séqaloon comme démocratie dañuy liberté yi dañuy bàyyi nit ñi ak seen i droit mm-hmm. waaye bu fekkente ni Mamadou bu ñu nga bàyyee say droit nga xañ keneen ay droit am lor ci ñeneen mais il faut qu'on siffle la fin de la récréation mm-hmm. donc loolu rek la ci wax